xamul na ki nga doon alaaji Fallaay man de xam naa ki nga doon alaaji Fallaay yaa liggéey ba retraité ay waay andil ñu beneen Fallaay Balde muy Ama Balde set na suma xol kontaan naa trop ñëpp xam nañu ma demee moom tey suma fan tey ngir mën a dellu euh, invitation bi ñu ma invité yëpp nañ ko seetaan never raay woo raay. raay. di raay. yaa di raay. wax leen raay. waa di raay. raay. yaa dalal baax. raay. bu mu dalee dal. anam hu raay. raay. bii mooy raay.